fogole séeréer may sim naa nun mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di am mbégte nag ak contentement rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk di leen di wax nag dal leen ak jàmm ci seen journal de la ren comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ma ci ànd ak sama càmmiñ sama góor Babacar Babacar looy rey looy rey. foog nga séeréer tey séeréer nga ko ah. dama nuyu dama nuyu sama mbokk yi suñu mbokk yi. Diouf laa sant. ah waaw am nga droit boobu. tamit dëgg foog nga séeréer ah. merci naanu merci naanu. nuyoo ak téléspectateur ñëpp di nuyu ñuy seetaan. séeréer tukulóor njaago joola. maanaam képp kuy doomu aadama daal ñu ngi lay nuyu. en général nuyoo nañ ñëpp waaye tey damaa beral nuyoo. séeréer yi waaw loolu du mën a ñàkk <laughs> a ñàkk maa ngi lay di la ñaanal yow tamit jàmm. jërëjëf Babacar ñu suivre rek ci Equivox TV. merci beaucoup chers téléspectateurs ñu dem seetaani revue des titres daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. jeudi 15 avril 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb lañuy ñuy xëy tey dooreeti ko. yëglikaay bi di suñu làmb nag day xata mu njëkkam fa xëy fasaliti wala lam ca xëy fasaliti daal li olof di waxu rek lu def waxu la li ay di njàmbat mooy mooy diggante coowu Modou ak Ama Balde wala boobu. boobu combat ak promoteur ba ko tëgg yëglikaay bi tey moom la xëy fësal ci xëtam mu njëkk mel ni ki nag muy Modou wala muy Ama ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk sa licence fi mu nekk nii daal renouvelé def nga ko ko maanaam beesalaat nga sa licence ngir am ren licence boo war a bëri moo tax nag yëglikaay bi jàpp na daal lig Nicolay mu ngi ca yoon wa nag ngir léegi ngir nag régulation Ama Balde ak Modou Lo yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey wax nu ko leneen loo xam ne nii wala beneen combat boo xam ne nii tamit taxaw ma muy diggante Bombardier ak Balla Gaye yëglikaay bi xëy na tey wan ñu leel ñoom ñaar ci xëtam mu njëkk mel nag yëglikaay ba la na loo xam ne ndax waa làmb nekkuñu di ci tàyyi muy ay répétition la ko mën a tudde maanaam def defaat ci biir ñi nga xam ne ñoom la ñu tudde ay VIP maanaam ñoom ci seen biir rek ñoom ñooy joxante ay combat ay revanche di bëre ak yu mel noonu yëglikaay bi jàpp ne loolu est ce que du dem ba freiné làmb ji ndax nag dafay baax des fois ñoom mbër yu mag yooyu ñuy tàllal xale yi nga xam ne loxo ko mérito nañ ko di jaxasoog ñoom di bëre waaye bu fekkente ne ñoom mbiri ci seen biir rek lay tourné yëglikaay bi ne na loolu moom boo bëggee dégg-dëgg fere na làmb ji lay def kii moom loolu coow li bëri ak lu wax ji bëri bare ak lees ko la olof naan lëkk loo ko bañ-bañ nangul ko guddi noppam ak mën dawam yëglikaay bi ka ko tax di wax nag du kenn ko dul Lac de Guiers na de ak coow li waaye nekk na koo xam ne ni day daan ko ci làmb jafe na lool te bëri na ay mbër yoo xam ne ku ci ne jël bu rëy daan na la ko yëglikaay bi ni moo xëy tey ñëw ci moom dana lak day du la waaye mën a wax moom daan ko du am pexe de maanaam lu jafe-jafe-jafe-jafe la yëglikaay bi suñu lam moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom moo jiite mbër ma doon bëre Lac de Guiers 2 muy Khalifa Niang may président Tyson xëy na tey di wax ci Eumeu Sène ak combat bi nga xam ne bëri woon na ko fi moom Modou Lo yëglikaay bi nag wala xaalifa ñaa ci boppam wax na ci sunu làmb daal ne na Sidi Diagne Link Télécom ñoom ñoo organisé woon jooju làmb moom moo xëy tey ñëw di ko wax keneen koo xam ne nii moom la mu organisé rëy na ba yegg ci lool muy ka nga xam ne moom moo di idaali ñingi yëglikaay bi ne daal idaali tournoi ba daal fi mu nekk ni nag ba génn na Kaaw Gourdin ka muy dajel premier combat mooy Albarka Kayre Yankaw Junior tamit ka muy dajel premier moom mooy caatu Daouda Fall te yemu ca de ndax daa jël combat ba maanaam itam andi nag ka nga xam ne moom mooy Ronaldinho ma ngeen xam mu nekk ca guy murit ca Tëngéej ak ka nga xam ne moom mooy Koña 2 ma nekk fa nga xam ne moom moo di ca Kolobaan waaye yemu ca da am na beneen combat boo xam ne dugal na ko ci muy mbaytin junior bu waalo ak ka nga xam ne nii moom moo di dab daan ma nekk ca fa nga xam ne moom moo di jam ñaajo mel ni kon daal idaali fi mu nekk nii yaramam moom tàng def na ko leneen loo xam ne nii fi mu nekk nii muy ay problème yoo xam ne daal ay problème mu dat la ci ndakaaru ba tax na daal yëglikaay bi xëy na ñu woon Gaston Mbengue ak nga xam ne moom mooy Habib farxaat ma nga xam ne moom tamit tëgg na ay làmb bokk na ci soko sim ak Serigne Ndiaye numéro 2 dat ya nag fi mu nekk nii daal moom mooy coow li ba tax na nag ñu ngay xalaat Habib daal nar nañ sax bu ko jaree mu dem fa nga xam ne moom moo de ca Thiès tëggi fa Serigne Ndiaye ak ka nga xam ne nii moom moo di soo ko Sokosim sunu làmb moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ne que noonu keneen koo xam ne ni moom la ko naqari la xëy di ko wax muy ka nga xam ne moom mooy Aliou Ndour ma nga xam ne moom mooy vice président wu amal daa Aliou Ndour daal la mu xam ne na daal ne na lenn fi nekk rek làmb ji wala arène nationale bu jaree ñu tëj nunu ko tëj te itam ne na nag ñiñ koy tëjal warta nekk ñenn ñu dul waa làmbi frappe ja ndax jàpp na ne lu fa yàqu les fa def ci loo xam ne ab sabotage la ña ko def du ñenn ñu dul ña nga xam ne ñooy bëre bëre bi ànd ak dóor kon ne na ñoom ci seen bopp ñoo war a xoolaat seen bopp xool seen taxawaay ndax la ñuy def ñaaw na ba yegg ci lool keneen koo xam ne nii moom day def lambi dóor di def lambi simple muy fara likaay bi xëy na tey ñëw ci moom de ak lambi simple ña nga xam ne commencé na ko ren yëglikaay bi ne na la commencé la 27 mars ba le 10 avril fara jot na fee ramassé lu toll ci 4 millions cent mille francs maanaam la mu jël ci ay tournoi moom la yëglikaay bi compté ci ab xaalis boo xoolee ñeenti tournoi Euh, participer na ca boo xoolee ñett yee la jël perte benn ba yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ba tey ñëw dinu wax lu mel ne ki noonu buñ fa jógee record la ñuy dem record buñ fa demee tamit Lac de Guiers numéro 2 lan fay fekk ak kaam wala ña ko yore di ko encadré mel ni ki daal waaye Gris wàllu fi mu nekk nii moom ñu ngay xaar Gris Bordeaux maanaam daal ku leen contact daal la ñuy xaar ngir ñu lekk avance su Gris Bordeaux bëre ak moom record moo xëy ñëw tey wax nu ko am na koo xam ne ni nekkoon na fi bëre ba bàyyi bëre yëglikaay bii nag xëy na tey ñëw ci moom tur wu rëy wu ne jox na ko ko muy Mohamed Ndaw Tyson moom record moo xëy dinu wax lu mel ni ki noonu maanaam nit nag nag nekk na koo xam ne daal ci làmb royukaay la te itam nag def na ci làmb loo xam ne ba àddinay tukki deete ko fàtte te itam mënta fay moom mooy Mohamed Ndaw Tyson l'homme de génération bul faale record moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki ba tey tamit bu ñu demee fa nga xam ne moom moo di ca Equivox su tamit Bécaye mbay mu nga fay wax ci làmb ji ak fa mu ca jaar ak mbër ya nga xam ne ni ñoom la tombeel ak itam na mu doxale ak ñoom ba tax na ñoom tamit ñu nekk boroomi jom profité ca mbir yi ba yegg si fi ñu yegg si tey waaye yemu ca de ñaawlu na tamit la amoon ca arène national moom Bécaye mbay yemu ca dànkaafu na Modou ak Ama Baldé ci ña ñuy àndal xamal leen ne daal ña ngeen di àndal fexe leen a fexe fexe fexe ba la ngeen di def di ko liggéey muy seen gagne-pain ñu bañ koo yàq Père Bécaye daal lii la wax ca Equivox TV la ko waxee. voilà bu nekkoon revue des ñu daal di di ko yéen ci journal suñu lamb tey Babacar ci xëtam bu njëkk euh, kañ fa gis rek moo di euh, Ama Baldé ak Modou loo mu mel nii rek ñoom renouveler nañ seen licence ba Luc Nicolaï mi ngi en route pour régulariser seen combat. waaw loolu de alhamdulilah la ñuy wax parce que moom la Sénégalais di xaar. Mhm. moom la ahlu lamb yëpp bëgg di ami. Mhm. maanaam Modou ak Ama. kon mhm. Luc Nicolaï loolu moo lay wan nekkoon ah moom combat bi li ci nit ñi ñaan. Mhm. maanaam mu am. moom mooy tam mu nga ca yoon wa dañ koy ñaanal rek mu dugg ceeg jàmm génn ceeg jàmm di ko ñaanal bépp promoteur parce que nekk na combat boo xam ne comme lu mhm. loolu politiciens yi may dégg ñu naan nangam mhm. mais combat avant Modou moom su bëggee dégg dégg non demande sociale la askanu Sénégal ñoo ko bëgg mhm. li lañ ci doon ñaan chaque jour rek que ñu commencé ko bismillah rahmaan rahim jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin que le meilleur gagne parce que ñoom ñaar boo gisee coow li bëri ak ni mu demee nii maanaam fi ñu toll la ci làmb xam nga di nga toll fenn foo xam ne ci mbir say mbir maanaam bu boo yëngutoo rek lu baree bare bu yëngutu mm-hmm. parce que xam nga ne Modou Lo fu mu yëngoo parcelle yëngu ak leneen ci yeneen i dëkk mm-hmm. Ama itam fu mu yëngoo Pikine yëngu ak yeneen i dëkk mm-hmm. loolu la waaye nañ def rek ci cadre sport sport rek quoi que le meilleur gagne quoi voilà ñu topp seen a ànd ay xel ami parce que loolu moom daf si am solo trop quoi bu ñu foofu ba tey rek journal bi xëy na àddu ci ki nga xam ne moo di euh, Lac moom nag malgré critique yi ci moom euh, il reste incontournable waaw parce que ah waaw buñ incontournable maanaam mooy koo xam ne daal looy mën a <laughs> jafe jàmbaar la effectivement loolu moo am mhm. parce que tamit nit da ngay wax li nga gis mhm. Lac de Guiers ba mu commencé carrière ak léegi am na ñu mu bokk na doon carrière maase ak ñoom carrière mhm. waaye defe naa ne am na ci ñoo xam ne mën ngaa limbal leen ay défaite mais moom benn défaite nga ko mën a limbal ci carrière am mooy digganteem ak Eumeu Sène mooy seen deuxième combat à part ça gisaatuñu fukk mbër mën a daane kon loolu la yëglikaay bi wax am na même bu critiques yi bëree mais nekk na mbër moo xam ne maanaam daan ko yombul parce que tamit loolu li ko ko may mooy moom li muy def da koy teg ci yoon boo xoolee du yàkkamti lu coow li bëri bëri bëri bëri bëri doo ko gis benn yoon mu ñëw si làmb di sorxo sorxo affaire am moom daal li mu jàpp ne moo koy arrangé wala moo li olof ak lu yekk moom li ko arrangé rek lay ah, wax na dëgg mag la ko la dalam xelam mooy moo koy may yaram ah, ali waa parce que tamit te loolu tamit euh, bu nekkoon ne amul doole wala fonk lu muy def wala doo entraîné wala amul bëre mhm. kon defe naa ne kon ba tey ñu naan diw daan na ko diw daan na ko diw daan na ko waaye nag ah maanaam telewul bëre de. Mhm, du ñëw ñebe te itam non non déedéet <laughs> te itam du ñëw si làmb ñàkk doole. dëgg la waaw. voilà bu ñu jógee foofu rek ñu dem euh, seeti euh, ki nga xam ne moo di euh, Bombardier ak Balla Gaye de ñu seetlu ne daal ci arène bi dañoo gis ne revanche yi ñuy def yépp entre VIP yi lay doon maanaam mbër yu mag yi est-ce que loolu mën a freiné li nga xam ne moo di compétition bi ñuy gis ci biir làmb ci. waaw léegi di kaay parce que li mu wax noonu seetlu boobu jàll ñu bëri ñu ngi mhm. mbër yi. boo xoolee ñi ñi tudd ay VIP parce que ñoom ñooy bëri seen biir. Mhm. loolu lay yàpp ne xay na bu continuer day freiner làmb. effectivement mën na nekk parce que dafay am ay xale yoo xam ne tey dañuy mérito mbir yu mag yi di leen may ay loxo di bëri ak ñoom des fois. Mhm. parce que dañuy liggéey ba egsi xam nga tey lu mel ni Ama Baldé. Mhm. Modou Lô dafa nangu bëri ak moom. Balla Gaye ak Boy Niang ñu ngi ko doon wax donte amul. yaa ngi dégg ay xale yu mel ni ñoom euh, Sa Thiès. ñoom Yékini Senior Garga Mbossé ak yeneen xale yoo xam ne tey bu leen doon lim duñ fi jógee wax dëgg yàlla dama naan tey jot na yenn mag yi may leen loxo ñu bëre mhm. ñoom parce que tamit loolu tax làmb ji gën a neex gën a am salance mhm. gën a am daal rythme mhm. mais mais bu fekkente ne ñi nga xam ne ñoom la ñuy tudde ay VIP boo leen dee lim matuñu sax dix wala ay nangam nombre bi bëriwul ñoom ñooy bëri seen biir affaire bi du tourner maanaam loolu bokkul ci li nga xam ne tamit wax dëgg yàlla am ami suñu waxante dëgg luy defar làmb la te xale yi ma la limbal ku ci ne ci ñooñu Mhm. tey mérito nga pour man ci sama gis-gisu bopp de mhm. yenn mbër yi nga xam ne ay VIP lañ may la loxo bëri ak ñoom parce que lu mhm. may leen chance pour ñu mën a dem ci kaw ñoom itam li naan garab ci kaw lay fekkante noonu la demee am na solo waaye ba tey rek ki nga xam ne moo di Khalifa Niang xëy na moom itam di wax euh, ci journal bi nee na combat Eumeu Sène ak Modou Lo structure di jaañ Link Télécom moom moo ko tëggoon moo ko organisé woon. waaw moom de lu mu ci wax dañ koy mën a jàpp parce que li tax moom mooy président Tay Shinger ba Eumeu Sène di yëngutoo kon bu ne diwa tëggoon boobu combat. Mhm. defe naa ne kon wax ji day daal di ferenku laayu rek. Mhm. waaw euh, tournoi yi daal di euh, combat nga xam ne nag moo war a am ci premier première journée bi nekk euh, Kaw Gourdin ak Albarka. Mhm. yang yang waaw Yankaw Junior ak Thiatou Daouda Fall ñoo war a tase. waaw loolu tournoi la boo xoolee tournoi la ñoom quatre personnes dañoo war a bëri benn tournoi. ku ne di wut neuf points mhm. ker mhm. mhm. nag la mu indi mooy Kaw Gourdin ak Albarka Kayre Yankaw Junior Caatu Daawda Fall kat ñoom ñeen ñeenti nii nag ay xale lañ xam ne ay espoir lañ yoo xam ne làmb bàyyi na leen xel ndax Kaw Gourdin mii mbappat yi gis nga arène nationale ñëw na fa ñetti yoon su ma lu ko ëpp jël na fa ñaari tournoi ci léger bi kon xam kooku kuñ jara xel la ko mën a bëre la Albarka Kayre mi tam boo ko xoolee ci Equivox li mu ma wax nee na moom moo kii xamante nañ. Mhm. te di te dinañ régler seen affaire. Mhm. kon combat bu méttee méttee ngi noonu. yankaaw mi tamit mburu mbapat la. Mhm. mbër la boo xam dama koy gis daje nañ da nga koy gis ci àll bi lu bëri muy mbapat. mburu mbapat la daaj Daouda Fall mi. rakku du lees lees numéro 2 Daouda Fall di papaam. muy na xale boo xam ne bu jar a bàyyi xel la. parce gis naa ko mu bëre. kon wax dëgg yàlla idaal yi indi na lu neex a neex te yemu ci. indi na ca mbaytin junior ak ki nga xam ne moom mooy dab daan mhm. ñu naan koy bajam ñaajo yemu ca indi na Ronaldinho ak ki nga xam ne nii moom moo di xale ba nga xam Konia 2 bu nekk Colobane muy lu neex a neex loo xam ne daal yàlla na ci yegg ak jàmm am na solo abondance des combats ñu gis ne combat yi dafa bari macha allah mhm. euh, ñu yaakaar ne problème mu date mën na ci am ba yenn ci promoteurs yi dañoo préférer migrer ci région yi waaw du ci ñàkk loolu moom dina ci am mhm. problème mu date moom mhm. a xam moom dina ci am li tax mooy xalaat naa li taxaw ci ay combat lépp lépp lépp pour date yëpp ñu mën ko tëgg dakaar te ñu ci bëri Dakar la ñu bëgg a tëgg seen ay combat buñ ko bëggee rek moom xalaat naa Dakar du ko mën a àttan kon naa ne nag ah faw ñu décentraliser tas ko dem ci raison yi mm-hmm, te raison yi tamit loolu daf koy dundal mm-hmm. tey Thiès comme na fa Sidi Diakhaté di def yi mm-hmm. ñi dem Kaolack ñi dem mbuur ñi dem Diourbel Saint-Louis Casamance fu nekk ñu yóbbu fa làmb dina baax loolu tamit dina baax mais lépp rek dañuy ñaan yàlla mu nekk ci loo xam ne ni dina tax promoteur bi mën ci gis boppam. waaw mhm, c'est muy dëgg ba tey bu ñu delloo ci yàqute yi nga xam ne amoon na fële ci arène nationale kii di mhm. Aliou Ndour di vice président Amalda. Mhm. daal dina moo di arène boobu bu ñu ko bëggee tëj. ki ni leen ni leen war a moo di euh, xam ne ñoo nekk ci lutte moom dafa jàpp ne bu ñu koy tëj nañ ko tëjal waa loolu mu wax ne du neex a weddi parce que li tax du neex a weddi mooy lañ fa damagu ci ay sees yàq ko fa bu ñu waxantee dëgg depuis arène ba amee ba tey. Mhm. Wally dafa frappe ko def. Mhm. waaw gémmiñ nag bu waxul dëgg wax la ca des. Mhm. te ñun kenn jaralu ñuy wax loo xam ne nii amul. wax dëgg yàlla xalaatuñ ko sax amee. li Aliou Mbour wax moom dëgg pire la ndax simple bi gisa góo fi loolu am ci. da ngay dem ci lit simple àll bi mu fees dell. ni teg xaalis bu bari. mais des fois sax police du fa ne. ci àll bi xëy na Dakar ngay gis sa des fois moom police mhm. mais bu dee àll bi la da ngay dem doo fa gis daray police kenn du mhm. ña maanaam lépp organisation waa dëkk ba ñoo ko toog ci suuf simple parce que dama yàgg ah, <laughs> sax ñu naa la xel di yóbbu ngay jàpp ci affaire yi ah, parce que loolu dañ ci war a a bàyyi xel mënuñu mhm. yow li affaire frappe bi ñu tabax arène bi ñoom seize yu fa damm ñoo koy damm ñooy yàq toilettes yi nekk foofu di damm robinet yi mu nekk loo xam ne mhm. te li simple am fa amati doo fa gis loolu ñaata yoon lañ fi teg mhm. mhm. li mu wax kenn du ko a na ne dammuñu fa ban yaa ngi dégg mais nag ñu ngi ñaan yàlla ñu bañ koo tëj parce li tax buñ ko tëjee danañ lor ay jàmbur balaa looloo am nag nañu fexe rek ñay yàq ñu simpi leen ci biir soow mi mhm. teg leen fañ leen war a teg loolu la nag ndaxte lu nit ñu bëri bëri ñi baax ngi baax ba léegi bu ne rek ci biir am nañu baax comme am nañu yàq non li tax frappe ay noobu la fa nekk dafa def lu leen mhm. ñu yar rek voilà ñooñu nag duñu mën bàyyi ñu yàq ci rek yi dëgg la ba rek ki nga xam ne moo di franc moom itam ma seetlu nañ ne entre le 27 mars ba le 10 avril mhm. luñ teg rek mu raas yóbbu moom macha allah ah. yóbbu na million millions cent mille ci 4 combats yoo xam ne am na ko mu ñàkk benn bi gagné ñett yi. waaw boo xoolee loolu de wax dëgg yàlla mën nañ ne waaw arène nationale surtout boobu ñu doon wax léegi moom. Mhm. ren moo fay roi ndax boo xoolee tournoi yi fa jot a am yépp mhm. boo xoolee moom jël na bu dee lañ fa tegoon la wax dëgg la foog moo ko jël. Mhm. ndax Fallou Ndiaye ñëw fa ñaari yoon. moom moo jël ñaar ya mhm. peres ñëw fa benn mu ñëw benn ba benn la fa jëlul te bokkul woon mooy bii nga xam ne moom la waa CNG tëggoon mhm. ak ñàkkaat beneen fi nga xam ne mooy ci terrain gaal gi mhm. mais su dul loolu kon Franc ren mën nañ li simple bi moom ah, ah wane na ci boppam bu baax a baax a baax ci diir bu gàtt loolu nag du dara lu dul sérieux rek euh, fonk li ngay def parce que li may wax rek à tout moment euh, Franc dafa fonk li muy def parce que buy bëre bu nekkee si biir làmb te loolu tamit et puis na ah. ko si moom ku am yar la son ak Gris Bordeaux maanaam euh, Lac de Lac 2 ak Gris Bordeaux gis nañ ne war nañoo mën a am combat ñoom ñaar ñëpp a ngi koy laaj

see fenn fi tey c'est grâce à waaw bay na ci waaram. Mhm. wax dëgg yàlla parce bi muy ñëw ci làmb ci année 90 su ma la ko waxee maanaam boo xoolee à partir de ay 95 mhm. mhm. wax dëgg yàlla comme li ma la sànq rek dëgg yàllaa ko moom bi mu ñëwee ah, am na lu mu wane. am na lu mu incarné. Mhm. maanaam wane na mbër nii la war a mel. mbër war na tabax étage. Mhm. war na sol costume war na dawal 4-4. Mhm. war na dem États-Unis war na dem fu mu ñëw incarné loolu ñu naan dina jàll ak du jàll. mu fexe ba loolu jàll ba defe naa tey loolu moom mooy li am ci làmb ji gis nga mbër yi léegi ni ñu comporté woo. kër gu rafet. macha allah da ngay gis mbër da koy tabax. daan na am sax du ma ne daawul am. mais xëy na moom daal lu ko ci abima ci langage. ay signature contrat face à face. def jantal waaw def jantal waaw xam nga dugg kat kat dugg xam nga nekk koo xam ne vraiment royukaay la. et puis tamit nekk nit ku am yar. parce que li tax ma ne la am na yar Tyson critique bu ne wala xeer wu ne sax ne ko ko ci làmb mais mosoo ko dégg mhm. mu. tontu. bul faale lu doon demee buy wax ci micro tamit du wax ci lu ko nit mhm. ko ko moo la mu doon doxe xam naa moom la continuer ba tey. Mhm. mooy génération bul faale. Mhm. bul faale nag Youssou Ndour ko ko sóoraale. loolu am solo kon a jaaraama rek. mais vraiment xale bu ndàngaan bi waaw ku a roy la ci a dëgg a digalooy tool waaw ñu nuyu waa Ahlu Ñaseen bi yëpp tamit. <laughs> am na solo nuyu waa Faydu bi képp kuy taalibe Baay rek maa ngi profité waaye di nuyu si weeru koor bi di sàkku ci ñoom ñaan mhm. waaye di nuyu julliti Sénégal yëpp ak yi mhm. am na solo voilà xibaar yi jaar fa ndar képp lay tàggatoo waaw ni ñuy tàggatoo daal mooy ñaan jàmm rek tey na xiifoo de non man man man man non man xiif naa de no xiif naa de mais xam la mooy sama problème man ay koor du ma ci ñëw di ci wane sama bopp quoi parce que li tax mooy xam nga mirus yàlla ñu ko digal mu di ak jaam ñu di ko def kon du ma fi nekk démb nag danga ma yee ci ay nelaw ba xoolal ñenn dañoo seetaan kii bi naan ma yii yow moom ku la gis xam ne koor gi jàpp na la sa kanam gi ah, dem na bu yàgg ah ah dama la yow kat dama la wax ne koor gi jàpp na la nga ne ma déedéet pourtant jàpp ma de ami tey si tey si yow <laughs> <laughs> am yéen da ngeen a ragal ko ci la bokk mën na ah, ñàkk ah non non non non woor moom yal na ko yàlla nangu rek. amiin di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. xam nga di la bëgg di la ñaanal jàmm di nuyu sa mbokk yi gay njaay yi tamit duma leen fàtte ah sama waaw bu baax a baax mère mère maa ngi lay bëggee yaay ami <laughs> am na solo waaw man tamit muy nuyu sama mm-hmm. jigéen bi ci suuf yàlla ko yàlla yërëm ci barke weeru koor bi ñëpp néew jullit ci suuf rek di ñaan jàmm Sénégal di wax ne daal yàlla ñu yàlla xir ci baax ñu di ko def saa su nekk rek mm-hmm. te li nga xam ne moom mooy sunu ay rëcc rëcc ci ay ñaawteef mm-hmm. yàlla nañ ko yàlla di jéggal parce que ay nit la ñu matuñu parce que mhm. doomu aadama matul mais ñi ñuy topp tamit ñu suivre di ñu commenter mhm. amuñu seen fay ñoom ñépp su ma limee dinaa jum mais mhm. yàlla leen yàlla fay am na solo jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi fii la ñuy daal di yem tey ci journal de l'arène di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf